jamono yii yëpp passé dañuy gis ñoo xam ne nii dañuy attaqué yoon wi di attaqué sëñ Touba ak di attaqué njabootu sëriñ Touba. am na nag ñu ko def ñoo xam ni jotoon nañ leen porte plainte ba léegi plainte bi yëgaguñ dara lu ci xew bari na mi ngi ak ñun yàlla dogal nag euh, euh, am ay taalibe ak ay murit yoo xam ne ci ñun lañ bokk ñu jóge woon Ndakaaru ak jóge feneen bëggoon a def ay violence ndax bëggoon nañu attaqué ji ñooñu. bëgg a ci seen kaw xamal leen ni duutuñu may kenn ngay wax ci sëñ Touba wala ngay wax ci ñooñam ak yoonu murid ndax xam nañ ni dañoo sible yoonu murid am na ñoo xam ne sax buñ ko mënta wax dañuy fexe ba am ku leen ko waxal bitim réew ñu bëgg ñu bëgg nag leeral leen ni leen képp koo xam ni sëñ Touba neexu la wala ay ñooñam neexu la wala ni ko ni ko yàlla def neexu la war ngaa mën a maanu ci moom wala mën a maanu ci ak njabootam. ñu démb bi ñu jotee ndigal li li ñu bëggoon a def mooy dem jëflante ak ñoom ndax mbir mi il faut mu leer dañu doon dem pour jëflante ak ñoom ndax am na ñu jóge woon Dakar sarse ñaari kaar ak ñu jóge Diourbel ñëwoon nañ démb nag ci guddi depuis minuit ba 4 heures de matin maa ngi jot ay téléphone ci autorités yi ñenn ci police ñenn ci gendarmerie ñenn ci autorités yi ndax xam ni sëriñ bi woote wut wi sëriñ Touba woote wut violence waaye lii ñu gis su fekkee bàyyi wuñ ko te kilifa yi taxawuñ ci ak autorité yi violence dana am ndax pas-pasu jàmbur. kenn amul droit di ko laal ku tone sëñ Touba ak li mu jiite ci àdduna ak soppe yi mu am yaakaar naa ni ko yàlla def ku neexul war ngaa man a maanu ci moom ñeen ñi nag Touba gi lañu dëkk xam nañ leen xam seen i kër xam fi ñu dëkk ñenn itam génn nañ Touba yemale wuñ ko tam ci Touba képp képp koo xam ne def na ko Touba wax ko danañ la attaqué génnee la Touba bu dee feneen danañ la fa fekk. non yooyu moom sunu point la boo xam duñ ko wax parce que ci rajo lañ nekk. mooy daal yoon wi moom dana am beneen taxawaay boo xam ndax lu neex waay def ah bu sëriñ bi waxee bu sëriñ Mountakha waxee kenn du ko kenn du kenn du kenn du ko kenn du ko kenn lam wax kenn du ko jëf loolu moom dafiy jóg heure bu bëgg-bëgg sëriñ bi taxawatee danañ ko jëf ñi nga xam ne nag dañuy attaqué yoon wi ak di attaqué waa ko sëñ Touba ak ñooñu sëñ Touba nañu xam ne danañ leen jaay suñu bakkan ñii nga gis ñu ne ci ginnaaw ñoo ci gën a néew ndax ku ci nekk dafa jiite am mbooloo am nañu nekk Kaolack ñu ñëw am na ñu nekk Dakar moom wax nañ leen ñu dellu dégg nga wax nañ tam li ñu war a wax police ak li ñu war a wax gendarmerie tey nag li ñu naroon danañ ko bàyyi ndax jot nañ ay ay ay ay ay téléphones yu bari sëñ bi nag sëñ am sa mii suñu kilifa xamal nañu bu leen yàq bu leen taal bu leen dóor bu leen def dara nañ toog déglu ko léegi nag def nañ suñuy réunion ñu ngi continuer di ko def di nag ñi nga xam ne ndax dama dama dañu jaaxle ci mbir mi li ñu jaaxle mooy euh, ku ñu tudd sa baay nga jóg taxaw kilifa yi di wane ni ay kilifa yi nguur lañ képp ku ci attaqué bu subaa police ak gendarmerie fees dell jàpp kooku yóbbu ci kaso bi te ñun ku attaqué sëñ Touba kenn du la wax dara kenn du la def dara dégg nga dañ koy gën a siiwal sax res sociaux yi di ko gën a siiwal te am na ci yenn yoo xam ne sax bu duggee ci réseaux sociaux yi ñoom dañ koy filtrer lu jàll mais day mel ne mbirum sëñ Touba moom ak ak njabootam luñ ci wax rek gars yi bëgg di ko contester léegi nag ñun ñoo jaay suñu bakkan bëgg a dajeeg ñoo ñu jaay leen suñu bakkan du ñu def nag loo xam ne ñi ngi koy ñi ngi koy lancer appel ñëpp nag tàmbalee ko sëñ Mountakha sëñ Mountakha dem naa fa fekk ko daalu tanzil bu yàgg li may wax sëñ koso doomam fekke na ko sëñ bi lu lu ko naqari la ñi nga xam ne dañuy wax sëñ Tuubaa luñ ko wër a wax ak ñi nga xam dañuy nekk ci dëkk bi di di njàngale meneen njàngale mu bokkut ak sëriñ bi ak di woo ci nit ñi ba nga xam ne fi mu toll nii dañu fi bëgg am doole mooy jënd fi ay kër def fi ay ay ay place ay ay magasin def fi ay centre commercial tabax fi seen i étage tabax fi seen i kër ba pare sëñ Tuubaa neexu leen duñ julee sax ci jumaa ji lii ñuy wax nag tey mooy dernière alerte bi. di jégalu euh, yéex gee ñëw xaar bu yàgg bi. Euh, li ñu fi dajale nag sëñ euh, Modou Diop Diaw ba wax na ko léegi man dama ñëw ci tuuru euh, sëñ Amsatou Mbacké al Khadim sëñ Amsatou mu sëñ Abdoul Ahad ak sëriñ Cheikh Thioro ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitee jiite Xudaamul Khadim yaakaar naa ñu bari dégg nañ démb woote boo xam ne ñu ngi ko doon def ci réseau sociaux yi e ñuy xam leen ni nag Xudaamul Khadim association la boo xam ne dafa structuré Euh, organisé euh, ba tax na du ni sax moom lu xew rek dañuy moom moo joxe day joxe ndigal ne nañ def nangam ak nangam waaye ñii nga xam ne dañ see nag euh, di membres yi nga xam ne dañoo yor sécurité bi te moo Diop Diaw bi jiitu ko ay taalibe lañ waaye réaction bi ñu réagir du réaction sax membre association mais réaction la boo xam ni taalibe yëpp ñoo ko maasee ku di taalibe murid Serigne Touba ñor la Euh, mbir mi yaa ngi ci biir bu ñu wootee danga nga wuyu parce que mbir mi day bëgg a ëpp day bëgg ëpp parce que man dama yàgg jàpp ni euh, état Sénégal moom moo koy seetaan parce que euh, constitution Sénégal dafa garantir à chaque citoyen sénégalais ah la liberté de culte kenn sañul ŋàññi nit wala nga xas ko ci gëm-gëmam wala ci ethnie bi mu bokk waaso bi mu bokk wala ci leneen ak leneen kenn sañu ko. ah ba tax na ni mu ko waxee léegi bu ma tuddoon fii ma taxaw nii léegi président de la République wax ko lu ñaaw wala ma saaga ko bala maa egg sama kër danañ jàpp te moom yaakaar naa ni nekk na fekk eh, maanaam yoonu murit ñi fi jiitu ñaata président fi nekk ah ah fay kenn déggatu leen eh, te yoonu murit mi ngi continuer di wéy mbooloo mi Sëriñ Tuubaa ñu bëgg moom la ñu àndal donc eh, ñun ñu nangu kenn kenn muy nekk ci dëkk bi rawatina nekk ci dëkk bi di profito ci teraangay dëkk bi doo fay dara doo fay taxi doo fay douane doo fay dara di dajale sab xaalis boo amee sab xaalis di jël ay nit ñu wayef bopp leen recruter di leen financer ñi nga jëndal leen ay taksi ñi nga jëndal leen oto ngir ñu génn ci yoon wi samp fi daara yoo xam ne ay xale la ñuy jël de 7 ans à 18 ans dugal ci seen bopp mbañeel euh, ak ak xeeb Serigne Touba Serigne Touba kenn ñemewu ko woon a tudd di wax lenn léegi ay xale yu ndaw ñoo koy tudd di tudd way yuuram di di daggi saaga te loolu lu ko waral mooy dañ leen ci former de le jeune âge former leen ci ba xamuñu gëdd ak Sëñ Tuubaa mais mag lu mu bon bon bon bon ñooñu leen jiite di leen di leen defloo muy Ahmed Lo moomu ak Khalil loo ñoom lu ñuy bon bon ñëmewu ñoo tudd Sëñ Tuubaa mais xale yi ñu formé ah ñi ngi fi dagal Serigne Touba Modou Diop mi nga xam na il y a cinq ans de ku ñu wax Serigne Samb boo déglu woon vidéo bi mu wax wax ko ci Soxna Jaara wax ko ci wax ko ci euh, Serigne Touba mais murid bu ko dégg te defoo jàkkaarloo moom te defoo ci moom li wax dëgg ci yow donc ñun waxuñu. li bëgg mooy euh, na dakk waaw amatul nag luñ ci bañ parce que bu fekkee guerre civile lañ bëgg na guerre civile éclaté on on on contrebalance ndax ñoom dañu nekk suñu kër suñu kër lañ nekk Touba du dëkk kër la suñu soxlaa ñu génn fi soxla wu ñu user de violence ndigal la ñuy jógee ak baat bu ñu demee nag bu ñu dee jaay doole nag bu fekkee ñoom ñoo nu ëpp doole loolu danañ ko xam mais mënatuñu leen may kenn kenn mu nekk ci dëkk bi te daara yi fi nekk yëpp recensé nañ leen wala yu ci bari recensé nañ leen te danañ. danañ ak jàkka yi fi ne ñuy defee ay prédication di xas Serigne Touba di dajji Pastef fu murit bu dee xam-xam ñoo leen ko ëppale fuuf amet loom yi ngeen di wax moo leen jiite maag maa moo ñoo bokkoon daara di jànge ci jumaa ji xam-xam téere yu bari maag ñoom ñoo ko lu mu xam fii ko xamee kenn génnewul fii dem réewu arab pour xam leneen lu dul xëy na lu xaa ngay ma ak ay maxaari wala spécialiste aussi dara mais du diine diine kenn ëppalewu ko fi xam-xam mais li ñuy wane ñoom ak réewande la ak xamadi état nag moo ci war a jóg parce que moom Euh, c' euh, la c' est le gardien de la constitution man bind naa ko lettre euh, ànd ak am sa mu recevoir na ñu wax ko lii man na sept ans de cela benn kenn jógu ji waaw barki Demba Ndiaye ku ñu wax ku ñu wax Omar Diagne Cheikh Omar Diagne wax ji mu fi waxoon Serigne Touba diffamation ma porté ko plainte ñu porté ko plainte auprès du procureur République procureur bi lu mu ñu wax ca kaw la la la ndigal jóge pour que ñu classé dossier bi ñu ne nag dañu sonn ci loolu parce que ay loi yooyu yëpp peuple su moo souverain moom moom dëkk bi ay luwaag yooyu yëpp ay nitay toog ñaari nitay toog ñetti nit toog seet nu mu leen neexee ñu ñu ñu bind ko wane ne population bi moo ko wotee te tel n'est pas le cas waaw majorité nag ñun ñooy majorité bu fekkee dañu seet li bëgg nit li neex nit dañu wara a seet li neex majorité bu fekkee démocratie li nekk constitution moo garantie nit bu ne lu ko neex mu gëm te loolu l'islam def ko santaane parce que l'islam boo seetee ñetti manhaj am na ay ngër ñeenti ngër ah am na ci yooyu yëpp wuute ah loolu moo tax ñoom ñu nekk ci dëkk bi ñu leen di toléré ah ak di jéem a muñ mais nag dafa am mbir dafa am fu muy yem waaw dafa am fu muy yem bu ñu leen dee toléré nekk ak jaan boo xam ne bu yàlla sàkk sa néeg mi ngi lay wër lum la matte nga di ko toléré mais ñàkk fay dala du diina du lenn lu nit wax fii lu fi kilifa diine moo tax wax ci dëkk bi di ko fi naqal wala mu koy ñaawlu lu lu gën a farata lii amut képp koy wax sa intérêt bopp ngay wax te doo dégg kenn du fi wax ku dul sëriñ am sa fi dégg muy jóg di exposé wu ñu koy dagali saagaak di ko ñakkal fay daag lu nañu di ko wax te pourtant il muy défendre ñëpp la koy défendre kilifa di yëpp war a jóg kenn waxu fi ci xutba wala discours lu gën a farata mbirum salafis yi ak wahabi yoon yi xam ne dañu nekk ci dëkk bi di di di xas sëriñ si am na seen ñaari seet yoo xam ne daarul sunna ak euh, euh, ak euh, daarul sunna ak alxuraan ak sunna boo ci duggee des centaines de vidéos yoo xam ne ay xasida Serigne Touba ñu jël di ko croix di saaga lu bon la ñu di ko wax ci dëkk bi. te te loolu y'a la y'a la direction de euh, police de euh, cyber cybercriminalité mi ngi fi ñeneen a ngi fi ah loolu doyu leen ñu xam ñan la te si di wala ñu jàpp ñi nga xam ñooy administrateurs yi même suñu nekkee à l'étranger ah, mais mais interpol ngi fi. donc daf leen ko jarul bu fekkee ne nag stabilité Sénégal ñoru leen te ñun euh, xam nañ nañu xam ni ah bu fekkente ne ñoom. Euh, dañu bëgg euh, yàq ah li nga xam ne mooy ci lañ judd yaru ci gëm ko mu jaral leen ñu feebar ñun danañ jaral dee bañatuñu ci dara lañ ci bañut wallahi azim bañatuñ ci dara wax ji moom ñu nekk ci dëkk bi moom dana dakk te ñi nekk ci dëkk bi danañ recenser daara yi fi ne euh, xool njàngale ma ñuy jàngale bu fekkee dëppoo wut ak njàngale majalis yi nga xam ne moom lañ daan jàngale ci jumaa ji danañ tëj daara ya parce que kenn du nekk ci dëkk bi dëkkub Sëriñ Tuubaa di kër ne kenn du jàng xasida sama daara kenn du fa tudd Serigne Touba bu waxee nga ne Serigne Touba day bokkaale man sama doom ci daara Xaadim Mbàkke la nekkoon moom moo fi moo fi njëkk a indi wahhabisme sama ah, la doon jagee di muuroog lépp ah mais loolu baax la amul problème mais bañ demee bay wax bay ba koy tere mu jàng xasida wala muy muy gis Serigne Touba ci dëkkub Serigne Touba bi loolu laa gën leen nag du hospitalité ñàkk fayda la mouridisme léegi dafa mel ne dañoo ñàkk fayda ñu ngi woo taalibe yëpp nag leen xam ne ni combat bi du combat du combat Modou Diop Diaw bi du am Serigne Amsa combat toute la communauté murit bi nga xam ni Serigne Touba ñor na ko la képp ku ko defete fu murid nekk juróomi murid nañ fa daje la ci war moom ñu def ko ko ñun moom Touba li ci war incha allahu taala dañ ko def na mu gën a waree